ci li nga xamante joxante loxo maanaam euh, jubóole gi nga xam ni euh, sëriñ Mountakha euh, xalif général des mourides def na ko damay boole sax laaj bi ak génne xalifa Ababacar Sall Oustaz Iran lan la mën a jàng ëllëgu Sénégal ëllëg ci taxawaay bi surtout sunu njiitu réew yi. waaw xam nga sëñ Mountakha jërëjëf mag day defar yàq baawul innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna aqwaykum yàlla nee na ñi gëm ay mbokk lañ kon ñi ma jox baatu autorité ñu mën a defar nañu defar diggante mbokk yi mm-hmm. yow loo mën defal lu ma mën ma def sëñ Muntaxa loolu la jëfandikoo yëg na ni ñaari njaboot am nañu jafe-jafe ci dégg ñàkk déggoo muy kilifa di seen kilifa kon la rafet mu teg leen ci kanam Sénégal jubale leen ci kanam Sénégal ñëpp yóbbaale loolu su ëllëgee buñ ko deful weer seen bopp ndax ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp suñ ko defee sagal seen bopp ndax ku dee ci marché yaa yaa yaa yaa yaay sagal sa bopp donc loolu muy mbir mi sëñ Mountakha wàcc na waseet def na yëfu kilifa dañ koy ñaanal kay mu yàgg lool ti wér parce que nii muy doxalee gisuma lu ko gën ci àdduna Eh, te bu doon football ma ne dugal na biiwu teraanga boo xam ne dootu am ci àdduna dootu am ci àdduna te loolu mag yi eh, eh, manoon na bi mu waxee góor gi bi mu ci pare mu def li saalum saalum yi tere wax waaw làq déedéet waaw génn ci mais daf ko dëggal ci samedi ak juma samedi dimanche mu génne xalifa ëllëgi senegaal nag li ma ci xam lenn la mooy nañu bëpp xol yi te jiital xel yi gis nga benn bëñ ci gémmiñ wóorul su dammi sàqami jeex ay bëñ moo wóor lu ma bëgg a wax mun taxaw wane na yoon wa wajadaka daalan fahadaa réer amoon na gindi na réeroo amoon na gindi na lu tawoon yàlla jaarle na ko ci moom kon li gën mooy président Macky mi fi yàlla teg mu féetee doole ji yor nguur gi yàlla dénk ko lépp fu muy dem lu mu xat-xat moom dana yaatu ci moom lu toogaay ba xat-xat yàlla dina ko may fu yaatu bu lu parole gàtt-gàtt dana ko fa am fu ne am na fa palaas te moom rekk am pouvoir boobu kon li mën a njukkalee yàlla mooy ku ko tooñ rekk mu baal ko <coughs> Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa bind ka sabrina alal iyaali waxtimaal adan min al jamii fialan aw maqaal Serigne Touba nii ne ku jiitu dégg lu la neexul ku jiitu ñu def la lu la neexul waaye pour ñu xam ne mat nga njiit dangay ngay jéggale jëllale kon na seetal xalifa wecc te jël gopp jox ko mu bay ci réew mi jëli Karim Wade delloosi ko ci baayam seetal ko wecc jël gopp jox ko ñu jàppale ko su demee ba jeexal ku fi mën a toog ñu continuer liggéey parce que loolu rek laa koy ñaan amul Macky lu mu soxlaati fi mu ne mu ngi ci plafond ba kay lu mu soxlaati mu ngi ci deuxième léegi li muy ñaan yàlla la ndaw sa jëkkër ji ba mu yéex a indi dépense bi ñuy nodd timis la dépense bi si jëkkër ji ne ko yéex gi di ma ci jaaxal mu ne ko du dara ñàkk ñëw gee ma ci jaaxaloon man waaye bu soobee yàlla mooy dàq reer bu teel am loo xam ne garaawul nit boo ayee dangay ngay ñaan yàlla sa kay dàq kay yi jiitu bi ma jëlee daara yi sëñ Babacar dama ci waxtaan ak benn paa mu ni ma xam nga lu ma lay digal ma ne ko mu ne ma xoolal ñi la jiitu fa ñu mujj bu la gënalee jaaral fa ñu jaar su fekkee gënul la weneen yoon woo jaar yow seetal bii conseil waaye seetal xalifa yëkkati gopp jox ko delloo ko lépp lu ko lu ko xañoon ndax yoon na ko ko delloo te xëcc ko mu bokk moom tool bi muy senegaal ak képp ko mën a liggéey mu boole ko ci Karim ma ca biti mu delloo si ko ndax xolu baayam dal ndax Ablaye amul ku dul Karim muy doomam te yeneen bi ne na doom daggitu resu baayam la bi Abdoulaye faatoo doomu Muhammad dañoo toog rek gis ronq yeneen bi wadd bi ñu koy suul Omar ne ko dangay jooy mu ne ko jooyuma njuree la jooy ku ñëw aas ibnu waayil di ko reetaan ni ko ab tër mooy ko wër wërsëgam dagg moo waral inna aataynaaka al kawsara wàcc inna aataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka huwa al abtar yàlla ne ko kooku la bañ laa coppe wërsëgam doom daggitu resu baayam maam Abdoulaye Wade benn doom bu góor boobu laa njort ni moom la am te mu jël Karim def ko doom uuf ko uuf bu rafet ah, ah, ah, nu mu tudd Macky sàll uuf ko uuf bu rafet taxawu ko lu ñuy defal doom defal na ko ko kon bu mun Muntaxa taxawee ñaan leen mu dajeeg bisu àjjuma na ci góor góorlu jëli Karim delloo ko baayam lu ko baayam defaloon mu fekk ko ci Karim jël Xalifa setal ko boole leen nag ku ne fa nga mënee mu dugal la fa nga liggéey ñu bokk defee réew mi keneen ko fi nekk te mën a liggéey ñu boole la ca lii mooy at ëllëg senegal su ëllëgee buñ fi jógee su Macky jeexalee ku ñëw am foo teg tànk mais bu fekkee dañu ne kii mënta jàll kii mënta jàll politique téye ko su ëllëgee ko fi ne ku fi ne ko defee loolu rek laa koy ñaan réew mi nag ci ñu bokk ku ca bokk joxe sa xalaat fii ci réew mii la ñu bokk ñun jógewuñu Guinée ñëw jógewuñu Mali ñëw fii la ñu juddoo si Sénégal am nañ ci droit itam am nañ ci cër wala tan sa nasibaka mina dunya yàlla ne na bul fàtte sa cër ci àdduna ku ne am nga ci wàll wàll googu ci laay ñaanee président mu def lii def na teraanga na ko mottali ñëpp bég nañu ku bégul ci li mu def amul génn gi yàlla génn xalifa jaare ko ci moom ñëpp bég na ci jaare ko ci sëñ Muntaxa ñëpp bég na ci na ko mottalee nag yi ci des yu lu xalifa ñàkkoon na ko ko delloo lu ko yoon xañoon na ko saisiraat joxaat ko ko euh, seetal ko ànd ak moom ñu liggéey Karim ñu indi ko ci wetu baayam góor gi xelam dal ñu seetal doomam mu dundandoog ñoom xuuf leen ñoom ñëpp ñu jëriñoo xam-xamu maam lay wàdd jëriñoo xelam ndax ñu avancé voilà. Oustaz Iran mu mel ni euh, li ñu dese ci waxtu waxtaan nag léegi ñu ndar képp jotaay bi euh, fi ma jëmaat rek xam naa ne bu ñuy wax nag xalifa moom yaakaar naa ne moom yaakaar naa ba su tay bi moom xam naa ne il fallait nga xaar euh, interview yi nga xam ne ci xalifa ndax ba xalifa ne génn na rek mën na ne askan bi àddina bi yëpp. ci oustaz Iran la dem oustaz Iran fi may dellu si rek mooy xalifa xalifa Sall Euh, jaar na Masalikul Jinaan nemmante ko ak euh, peuple bi askan wi euh, ndakaaru ak yenn gox-goxaan yi ñëw Tiwaawan te boobu ba léegi yaa ngi doon wax ni xalifa mosoo koo gis mosoo leen toog xamante leen Tiwaawan xanaa keroog moom jàkkaarloo ngeen xanaa. gisee wuñu xaritu kii Moustapha moo ma yónnee audio ne ma xalifa Sall ngi ñëw boori Tiwaawan. ma liir ko supprimer ko fay sama téléphone parce que ñu gisee du farata du farata soo xasee def li ngay def walla nga dox li ngay dox bu sottee rek seeti leneen xalifa yàllaa ma ko bëgguloo mbëggeel gu dañ cofeel gu dañ diineem ngoram jomam dëggoom dara dañ ci man ñëw na Tiwaawoon dimanche wax na ma ne bi ma toogee ci rawdu bi ci sama turandoo dama ko ne ñun ñii fi nekkat manqué nañ kenn ku ñuy wax iraa dama bëggoon mu ñu jox ko wàllam dimanche la fa ñëw leen di heures vingt six mu téléphoné ma. moom moom xalifa. moom xalifa Sall waxtaan ak man gërëm sant. mënoon na ko ci bañ a fekk gërëm sant ne ma loo ma téye benn téye naa la ko téeméer loo ma téye fukk téye naa la ko téeméer walla sax million ti li may ñaan suñu gisee gaaw maa yow ñu gaaw su ma gisee yow li may ñaan mu gaaw ma ne ko yàlla baax na euh, muntaxa booy ñaan ba mu nangu walla ngay wut dara baam ko looy bëggati la waaju noonu koy aji màkka daje kaaba ga <laughs> nooy def loolu jël kaaba gi tawaaf ko te wàññeeku rek man li ma bëggoon am naa ko xalifa génn na man dama caa bég ba socca bég ba mënuma caa wax waaw bi nga may oo mënumaa wax xëcc naa xëcc sama waxukaay bañ alhamdulilah tayib génn na euh, xalifa génn na alhamdulilah ku ne ca kaso ba yàlla na la yàlla génne kuñ àtteegul ñu àtte la euh, Karim ma nekk ci biti réew mu ñu indi ko mu jege baayam xolam féex mu dund lu yàgg lii rek laa bëgg. Euh, fi may daaneel rek mooy kàdd gu mujj euh, si xalifa yaa ngi doon taxaw di wax rek parce que waxoon nga wax ko xam ne xawoon na jaaxal ci ñenn ci yenn dégg-déggin daa nga wax ni xalifa fi mu dugg yàlla rek moo ko fa dugal waaye moo ko fa mën a génneewaat booba ma la fekkee teewoon yaa ngi doon wax kàddu googu. waaw loolu mooy dégg parce que yow fi mu génnee foogoo ko woon Sénégal amul ko kum bettul yàllaay doog a paral lu jot yomb lu jot rek yomb ah, gis nga Serigne Touba dafa waxoon ni addurru wa nafu kulla min arrahmaani laysa min al bidaani wala suudaani nee na njëriñ ak lor yëpp ci yàlla jóge jógewul ci nit ku weex jógewul ci nit ku ñuul donc nag loo gis yàllaa koy dogal suñ jataay bi yàllaa ko dogal su ko neexul nga ñëw fekk ma dem su ko neexoon nga ñëw ma feebar duma ma ko mën a def kon lépp ñun ñëpp ci machi ay yàlla ñu dox wa ma tashauna illa insha allah rabbul alamin kon yàlla moo dogaloon ne xalifa dana fa jaar waaye moo dogaloon ne danañ samp jumaa ju Masaalikul Jinaan jumaa jooje dana yegg dana daje xilaafa mun Mountakha Mbacké mooy ñëw ubbi si ko waaye bu ko ubbee àjjuma samedi dimanche ca xalifa yi génn looloo doon délai bi li kulli shay'in ajal jeex na. naka ndongo yi ba moom ñoo ngi ci feet yi ñoo ngi ci feet yi ba léegi de feetu semaine beeg dépense ak li ni mel. <laughs> xam nga audio bi ma bi bañ ko waxee montage bi moom yaakaar naa loolu leer na dañoo dellu si waatoon <laughs> nga yéen tiiñal naa neex Sidi moom. waaye jàmm ji moom moom moom. <laughs> Eh, yi ñoom dañ ma ko envoyé ma seetaan ko. kon seetaan nga bu jàmm ji. seetaan naa ko bu baax maa ngi sol yére bu ñuul waaye euh, la kat dama noon waxoon Abdou Sall mi jiite daara ji ne leen mercredi jeudi vendredi ñu ne ma mercredi daara jee ko moom jeudi suñu feet la mayoo ñu loo moom <laughs> dañuy may loo moom gannaaw ajjuma buñ julli jumaa lañ daan jàng samedi dimanche lundi mardi mercredi ñu amaat feet ñu jox jour yi nga moom mais leen bési yàlla moom aljuma la kat incha allah buñ julli juma lañuy ñuy démarrer fa la ñuy añee buñ dugg see rek añ dem may naa leen feet ba a juma si añ reer ndékki añ reer ndékki añ reer ndékki ba ji dir ñu muñ nag te añee nañ daan añee reer nañ daan <laughs> reeree ndékki nañ daan ndékkee ba dara xewagul waaw loolu moom Euh, avant may jógee Tiwaawoon démb euh, nas naa ko ñu koy togg euh, yañ war a jënd yëpp nas naa ko ñoom li ci des rek mooy togg rek gaa yi di lekk waaw parce que bis bu ne ñaata ganaar ak bis bu ne ñaata ah waaw booy def da yàlla nee na xam nga lu suñ borom wax lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun li ngeen di def du ngeen ci am li ngeen bëgg feek joxewul doxu leen ma li ngeen gën a bëgg kon doo def ay yabo yi xale yi di fot boo ko bokkook ñoom yaasin waaw mais da ngay jël ay ngot ay jaleñ ay ginaar bés bu ne vingt ginaar lañu ñu commandé bu dee mburu cinquante pain pour ndékki noonu la ñuy def koy variété couscous macaroni euh, ginaar noonu lañ koy toppee rek parce que itam yàllaa ñu ko jox te ci yàlla lañ koy delloo te reggal ko xiif yiw la te maa leen waxoon ne ñaanal leen xalifa su ngeen ñaanee ba mu génn ma man li ma leen di weexalee mooy may leen feet weexal gi nag laa leen bëgg a jox moo tax ajjuma la kat incha allah lay commencé euh, rek ba ajjuma ji dee siwaat bu neexee sunu borom. tabarkalla jërëjëf mbokk internetu jàmm ji info euh, point net mbokk yi gis ngeen euh, yaakaar naa ni euh, kenn du ràññ naataam léegi ki xam-xamam gu sell te te wóor tam muy oustaz Iran ndaw mu mel ni gis nga interview bi ñu fi def lépp di ay njariñ nag mbokk yi di xanaa di ko ñaan rek sunu borom na dolli ko dolli wér kattanal ko defal ko tawféex ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz Iran Ndao jàmm ji info moo ngi lay jaajëfalaat bu baax baax. waaw maa ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax di leen gërëm Eh, man la Mountakha jàmm ji info yaa sa turandoo nag xaw niroo ngeen ndax da ngay ree rek waaw ah, sëñ Mountakha day ree rek am naa yéene seeti ko oh, ndokkeel ko ci xalifa sàll am naa yéene it seeti Macky sàll président ndokkeel ko ci xalifa sàll bég naa lool ci moom nag lool ndax moom dogal bi yàlla jaarle ko ci moom sëñ Muntaxaay dinaa ko seeti ndokkeel ko fas naa yéene yéene laa wax yëpp damay bañ nga woowaat ma fi ne ma yaa fi waxoon waaw dama ne la fas naa yéene seeti sëñ Muntaxaa ndokkeel ko fas naa yéene seeti président Macky ndokkeel ko su ko yàlla dogalul ndokkale sëñ Muntaxaa maa ngi lay ndokkale bu baax di la sant di kontaan ndokkale Macky maa ngi lay ndokkale bu baax di sant di kontaan bu yàlla dogalul gise bi ma avancé boobu su ko dogalee waaw Marème moom bu Marème beneen affaire la Marème parce que lii lii maag xalifa ba yegg si fii ak ni ñu yàlla boolee mais Marème dafa am principe kenn mënu ko jëlee ci lum nam lum nam ma kenn mënu ko ko teree def dañu xaw bokk jikko lum narul it mënoo ko koo defloo lu ma bëgg a def kenn mënu koo tee defloo moom yàllaa ko bindee noonu muy sama xarit bu baax a baax a baax a baax sama xarit bu baax yi nga grand cœur bii ñuy def lu ne la may yónnee ne def ko ci grand cœur franchement di nekk jigéen ju baax ju am Pastef man sama xarit la waaye yàllaa ko def sama xarit pur la kenn mënu ci dara ah man bu ma xasee màtt anaa nga buddi samay bañ mu wadd waaye tànk maa ngi màtt du dañ jërëjëf yi maa ngi koy ñaan nag mu delloo xalifa ay mbiram lépp ñaan ko mu bàyyi Karim mu ñëw mu setal ko ñaan ko mu ànd ak ñoom liggéey jërë ngeen jëf. mbokk yi kon euh, noonu la ñuy tëjee rek euh, di santaat bu baax oustaz Iran Ndao euh, ci tàggatoo bu am solo boobee itam di nuyu ci wàllu éclairage beeg caméra beeg montage bi l'infatigable bi gi ba ci wàllu réalisation bi Coumba Ndoffène Diouf ci wàllu présentation seen jotaay noo ko jàngatee ak seen bokk taalib Mouhamadou Lamine Mountakha yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla sa borom bi defal jàmm ñoo asalaamaaleykum